sunu sant ko rek. nee loolu la cay sunu warteef mooy sant ko rek. sant gi bi ma koy xam lii lii eh, koy xalaat damaa xalaatoon ajjuma ju ñëwati rek ñu def ko ni ajjuma jii tey. nee na bi mu koy xalaat dafa xalaatoon ajjuma ju ñëwati rek ñu def ko ni ajuma jii tey. waaye nag dama se se doy du doomu aadama ak yitte yu bari yeeg artifice adduna yooyu yëpp. ma xam ne loolu itam nag kon mat na sedd nee na waaye dafa xool doye doomu aadama ak yitte yi ak gàllankoor yëpp mu xam ne kon yooyu yëpp mat naa sédd bi ma xalaatee ne aj ajuma bi ñëw dañ ko war a def boo ma wàññi ko defal ko ñetti weer ñetti ñetti ko ñeenti ci weer bi nee na bi ko xalaatee euh, euh, daal di ne nañ ko def kon ñeenti ñeenti ajjuma ci weer ma xam ne ba tey rek faw rek suñu doyadi ak suñu jotadi dañu gàllankoor ba xëy na loolu itam dafa dana daal di bëgg a doon fitna moo moo wàññiwaat ko mu daal mu xam ne ba tey suñu doyadi ba tey ak jotadi gi dina tax ba tey dina doon sunu fitna mu daal mu wàññiwaat ko ma ma ma def ko nag ma ma xalaat ko nag nu nu def ko ci jamono yii nu toll ñaari ajjuma yi ajjuma ju tey jii ak bu delsee ñu dolli ko nin ko defee rek nu defaat ko ni mu jàpp nag ne nañ ko wàññi nag def ajjuma ji ñu ne ak bu dellusee ñu defewaat ko nii ñu ko defee rek tey ji ah, ci li nu jëm yi lépp eh, eh, bàyyi ko xel def def ajjumay Tuubaa ji ñu waa waxtu ñu ko mënee rek euh, ñu ñu ñu ñu ñu yeesal ko peq. nee na nag li nekk suñu kanam nag njabootuk sëñ Tuubaa gi ñu xam ne rek li nekk suñu kanam lépp lépp lépp waxtu woo xamante ne mënati naa am rek nañ ko delloo si waat xam ne ajjumay Tuubaa ji dafa war a wéy rek ñu ànd ko jàpp ko di ko sàmm. loolu yeesal ko tax. loolu loolu loolu li ko waral. mooy mooy ni ma ko jëkkee woon a waxee rek sëriñ bi boolewul ak dara ak boromam dundam gépp gépp gépp gépp jox na ko boromam lu boobam ak yonent bi ko jox ndigalam nee na mooy ni mu ko waxee woon rek sëriñ bi musta boole dara ak boromam nee na ak yonent bi saa san bi nga xam ne moo ko ci joxoon ndigal boromam ñàkk ñàkk ñàkk solo nag war nañ koo war nañu nañu war nañu jóg eh, am fas ne sax dàkk ci sant sant ko sant ko ci wàll yëpp digg ma boromam digg ma yonent bi digg ma boppam suñu digganteeg moom lépp ay cant la yoo xam ne dañ caa war a sax dàkk di ko def. nee na kon nag lu luñ doyadi doyadi nag war nañoo xam ne nag war nañoo sax ci sant ko. ci lépp nag anam yëpp digganteem ak boromam digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak suñu digganteek moom ak su lépp rek lépp rek war nañoo ak diggante ak boppam lépp rek war nañ koo sax di ko sant saa su ne. kon kon kon loolu moo waral nag kon eh, ginnaaw moom boolewul ak dara ak boppam te dundam gépp jox na ko takk te dara gisewu ca dara loolu ñun ñu am tawféex jure yi jëm suñu boroom booleek moom nu nekkal ko fi kon war nañu góorgóorlu bu baax ci fas yéene sax ci sant ko cant gi nag mooy nii nu koy nii nu ko defee nam ko gën a le rek nam ko gën a le rek ku ne xam na zikru ku ne xam na luy dara jaam ci lislaam alquran ku ne xam na luy dara jaam ci lislaam ndax laa indi sëriñ bii nag moom mooy sunu mooy xaas nee na kon nag lu nu doyadi doyadi rek na nga xam ne wala noo sax ci di ko sant moom sëriñ bi euh, te cant gi nag nee na ñu di ko defee ñu di ko defee ni mu ko gënalee ci diggante alquran ji ak zikrullahi ji euh, waaye xasaayit yii nag nee na mooy sunu xaas nañ xam ne mooy bu ñu ko jubloo sante ni mu ko gënalee xaside yi nañ xam ne mooy sunu lépp mooy sunu xéewali tey mooy sunu xéewalu ëllëg mooy sunu ndamal tey mooy sunu ndamal ëllëg góorgóorlu bu baax nu góorgóorlu bu baax. nu góorgóorlu bu baax. kon nu góorgóorlu bu baax. fonk gën a gën a gën a gën a fonk xasida yi. gën a fonk xasida yi. mooy sunu lépp. ndax mooy sunu lépp. mooy sunu mooy sunu tata. mooy sunu xéewal. mooy suñu xéewal. mooy suñu ndimbal. mooy sunu ndimbal. mooy sunu lépp. mooy suñu lépp. tey ak ëllëg ëllëg nag. defaru teeg ëllëg rek. defaru teeg ëllëg rek. fonk xaside yi moom. fonk xaside yi moom. defaru teeg ëllëg la ñuy indil. defaru teeg ëllëg la ñuy indil. ndax sëriñ bi lu mat a ña lu mat a fàggu digg digg ba boromam. ndax sëriñ bi lu mat a fàggu digg ba boromam. fàggu na ko te jubóo na ceeg boromam. lu mat a ñaan. lu mat a ñaan. ñaan na ko. ñaan na ko. te boromam na ko. te boromam may na ko. kon nag ñun sant dong nu war. kon ñun nag sant dong moo nu war. nan góorgóorlu bu rek. nan góorgóorlu bu baax rek. fonk defal nekkal ko ci li mu bëgg. nekkal ko ci li mu bëgg. fonk xaside yi. fonk xaside yi. sàmmal ko alxuraan. sàmmal ko alxuraan. sàmmal ko lislaam. sàmmal ko lislaam. bokk ci lislaam ak lu bokk ci lislaam nan ko jox suñu dund gépp nan ko jox suñu dund gépp liggéeyale ko ko liggéeyale ko ko jox ko ko jox ko ko loolu rek mooy suñu warteef amuñu beneen warteef kon nag jër ngeen jëf ne ko nii ko sëñ Mourtala waxee rek nee na matal na lépp alhamdulilahi rabbil alamin lii xéewal gu rëy la gi njabootu sëñ Tubaa gii toog taalibe yi toog. mbokki taalibe yi toog. ñu nekkal ko ci li mu bëggoon. ñu nekkal ko ci li mu bëggoon. ba waxtu wii. ba waxtu wii. alhamdulilah rabil aalamiin. loolu xamuñu lu nuy sante. waaye nañ sax ci lii waaye nañ sax ci lii nag. bàyyi ko xel bu baax. sëñ bi mënuñu koo sante lenn. lu nu nekkal ko ci lim bëgg rek. lu nu nekkal ko ci lim bëgg rek. nekkal ko ci lim rek. nekkal ci lim bëgg rek. mooy nekkal ko ci boromam rek. mooy nekkal ko ci boromam rek. suñu kem kattan. suñu kem kattan. suñu kem kattan rek. fonkal ko fonkal ko lislaam ji. fonkal ko lislaam ji. bàyyiwul dara wane na lépp. bàyyiwul dara wane na lépp. kon nag nan góorgóorlu rek. kon nag nan góorgóorlu rek. sax ci dàkk. mooy suñu defaru tey. mooy suñu defaru tey. di suñu defaru ëllëg. di suñu defaru ëllëg. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. waaw nee na nee na li ci xol bi mënee su ko wax waaye nañ xam ne xolam sedd na ci nun guy xel xelam dal na tiix ci ñëpp. waa wóor na ma ne yéen seen sëñ Tuubaa dëggu na ci yéen. waaw jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke na sëñ Tuubaa na ci ñun. te ku sëñ Tuubaa dëggu ci yow nag. te ku sëñ Tuubaa dëggu ci yow. texe àdduna ak àllaaxira rek ngay am jërëjëf Mbacke na ñëpp tàllal seen loxo na ñëpp tàllal. ne sëñ bi. waaw ne ko. sëñ sëñ Moutala nee na Mbacke. ndigal ndigal ndigal lay déglu. nee na sa rek la ñuy déglu. mën nañu ajuma ñu nekk. mën nañu ajuma ju ne. ñu defee ko nii du ñu wàññi dara jërëjëf Mbacke jërëjëf na ñëpp tàllal seen waaw nekkul ci lii. bu nekkul ci lii. nekk ci leneen lu ñu amalul njëriñ. nekk ci leneen lu ñu amalul njariñ wala wala ñu bañ nekk sax ci dara. wala ñun bañ a nekk sax ci dara. kon nag nañu góorgóorlu bu baax kon nag nañu góorgóorlu bu baax. daal di fas yéeneen sax dàkk ci nekkal sëriñ bi rek. jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf.